Cheikh Mouhamadul Xaban mii jëmee ko ci ñépp ginnaaw bi nga xamee ne nag Sëriñ Muntaxa dina yónni woon ci moom waaye la jiitu mu dina yónni ci moom Sëriñ Mouhamadul Xaban mii ginnaaw ba nga xamee ne mbokkam mu baax moomee di jàmbar jooje di jëwriñ jooje di Sëriñ Mamoor moomee nga xam ne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 te faaw jëriñ di am sëñ Mountakha moo tànn sëñ Modou Xabaan mii na ko taxawal fa sëñ Maamoor taxawoon taxawal ko liggéey boobe liggéey boobu nag jëriñ yii toog ñoom la ko sëñ Maamoor daan àndal ci lu mu ci mën a doon nag moo xam bis bu ñuy woote jàng alxuraan la nii nu koy defee tey jii wala bisub sedd lay xéewal la wala lu mu mas a mën a doon ñii la ko daan àndal te mooy rabit waa rabita madaris islamiyé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 ngi nuyu ñëpp di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi sëriñ moodu Xabaan mii di fi sëriñ Muntaxa euh, di ñaanal sëriñ Muntaxa moom it suñu borom yokk aw fanam akuk wéram di sof rek suñuy kàddu ci ni ko sëriñ Cheikh waxe muy ñaanal suñu jàmbaar jooje sëriñ Maam Mor ibn Cheikh Mahamadul Fadal euh, suñu borom dolli ay leeram ca fam ne li ci sëñ Cheikh wax rek moom la ci ñëpp jàpp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 buñ la joxee lu la jomb. waaye nag buñ la joxee lu la jomb. da nga wane sa sa cant ak sa mbégte. da xam ne murit li koy jariñ mooy ndigal. xam ne murit li koy jariñ mooy ndigal. fas nañu yéenee topp ndigal loolu moo ñu sant. di ñaan itam suñu kilifa gu baax googee. di sëñ Mamor.